tey mardi 25 janvier 2022 ñu fas yéene ñëwaat ak yéen ci xibaaru làmb bi ma ci ànd ak Boucar ziar la. soxna Amina maa ngi lay fay di la nuyu di la ziar mbokk Sénégal yëpp rawatina mbokk internet Lutte TV ni nga ko waxee rek Amina tey la mardi 25 janvier 2022 ñu ñëw ak yéen si yéen kaay yi. noonu la demee ba tax na dañ koy daal di ubbee rek ak xët yu njëkk yi nga xamante ni moom moo nekk ci journal suñu làmb mu daal di xëy di fësal ci xëtam gu njëkk Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye ginnaaw defetam bi nag ba suñu joonu yàlla tey ji ñun ñaa ngi continuer di topp kaa bi nee nañu dafa dem ci diwaanu France di faju ndax dafa amoon problème mu ndigg ñaari docteur la jël ak benn kinésithérapeute. waaw Amina Ndiaye loolu la journal sunu lamb xëyee tey rek fësal Balla Gaye 2 Amina Ndiaye mu mel ne jamono ji nee nañ ne ma nga France maanaam di faju jàpp nañ ne dafa amoon blessure boo xamante ni tey Amina Ndiaye si ndigg bi moom la nekk di faj foofu noonu ni nga ko waxee rek ñaari médecin ñoo koy faj ak benn kinésithérapeute mu mel ne nag Balla Gaye 2 moom maanaam li nga xamante ni rek moo di moo di wér-gu-yaramam waaye yaakaar naa nag nit ñi wax rek la santé avant maanaam ñetti avance yi ko dese Amina Ndiaye dafa dafa dafa am doole am importance yi moom tamit am enjeu bu muy am si carrière am kon yaakaar naa ne war na mën a faju ba wér balaa maanaam blessure boobu ñu wax ne moo ko dal mm. di ko porter préjudice comme li ma la waxoon keroog rek nee naa la Balla Gaye jamono ji ku koy yéexaaju guddi boo ko nee ban defet a metti sa defet yi dina ni deuxième defet bu mu ak Bombardier te boobu nag dafa mel jàng na ci ay erreur na daw na pour mieux sauter waaw on apprend moom na dafa feebar moom na faju ba wér parce que yaakaar naa moom mooy li nga xamante ni moo gën a am solo même bu dul làmb ji sax wér-gu-yaram moom kenn mënu ko jëndee dara kon na faju ba wér parce que xam ne combat yu ko des tamit combat yu nar a métti la doon ci moom maanaam du yomb ñi mu dajale duñ ko ko yombalal kon na faju Amina Ndiaye ba wér. bu dikkee tamit war na jubali ca diwaanu CNG ñu saytuwaat ko doog ko jox certificat médical de guérison. waaw doog doog ko bàyyi pour mu mën a mën a bëri wala ñu door ko autoriser mu bëri yaakaar naa ne loolu daf si am solo lool lool kon xam naa ne bu ñibsee parce que CNG tamit am nañu ay médecins xam naa ne dinañ ko ausculter xool ko ba xam ndax mu ngi am bon noonu la demee ba tax na ba tey ci biir journal buñ ni leneen mooy am ak leneen Reug Reug ak Gouye Gui ñooy tasante te ñaari mbër yooyu buñ tasee rek rien que ñu jàkkaarloo rek loolu mbir la. ñaari mbër la yoo xamante ni Amina Ndiaye moo sa sa sa poos te doo wan te doo ko wax dina tontu Reug Reug tamit lu ko lu guy Gui wax dina ko sulli moo tax journal bi jàpp na ne super ndaje la boo xamante ni tey ndaje du tourner danger du tourner danger nag bu ko waxee maanaam nekkul mbirum violence ni maanaam si ñaari mbër la rek tey ñoom ñaar seen fugg seen dégagement xam nga seen seen seen seen seen bëgg làmb ak seen dund làmb Amina Ndiaye yaakaar naa ne moo tax journal bi titré ko noonu waaye nag xam naa ne combat bu neex lay doon combat bu amateur yi nag di xaar Amina Ndiaye guy gi nag jamono ji jafe na lool lool lool Reug Reug tamit gis nga gars yi gëj ko gis lool lool lool waaye yaa ñaari mbër yi yaakaar naa ne combat bee ko jar rek. ba ñu jógee ci Balla Gaye sànq dañu ñëwaat ci rakkam Sa Thiès Sa Thiès journal bi daal dinay samp ab laaj ci moom nee na est-ce que na def mieux que Balla Gaye 2 ngir gën a tenir li nga xamante ni euh, moom moo di euh, héritage bi fi Double Less bàyyi. ngir tenir héritage bi fi Double Less bàyyi mën na ko Amina Ndiaye si si bi nag mooy nag si bu mag mu ngan nga koy bàyyi xel waaye Sa Thiès tamit xale la waaye am na lu mu jot a def ci làmb Amina Ndiaye parce que tey ay ñëpp nga koy bàyyi xel ci làmb kon nag day ñëw rek li ñu naan yokku ci rek doole ñu redoubler d'effort mm-hmm. bu ko defee am nañ yaakaar ne war na mën a téye loolu noonu nga xamante ni moo di rëñu Double Double Less parce que tey moo li ko dese si carrière moo ëpp li dese Balla Gaye 2 kon moom nag li ko dese yooyu noonu tey yaakaar na ne tey lu mu déedéet tey dese na ko benn 15 ans ba 20 ans boo xamante ni tey bu si liggéeyee li war yaakaar na ne tey war na mën a yegg au sommet sama papa mbër la woon sama mag mbër la nekkoon na fi roi des arènes loolu rek dala yokk jom tey jii ba nga jël sa bët daal di koy teg fu sori waaw ba te am nañ si yaakaar parce que tamit moom tamit mbër la boo xamante ni tey mbër bu respecté entraînement la mbër bu bu moom Sa Thiès ko mën a wax rek mooy que ne rek naan ko bon vent bon vent Naar Touré nag moom daal dinay ciblé ki nga xamante moom moo di adversaire Naar Touré nag bëgg-bëgg moo ñib si rek jëflante ak xam naa ne nag combat bu neexal bu fekkee ne dinañ a a kaw a na ñib na daal di ñibbi si ba pare waaw bu dikkee ñu soo waxoon nañ naka la ñuy ay mbiram gars yi moom am naa njaay ñu si bëri dañuy nekk foofu noonu rek ah yaa ma gën a xam di di laaj gars yi rek te duñ ñëw mais bu bu ko jël laajee daal xam naa ne bu ñu see dina am combat. ndax am na combat yoo xamante ne dañ koy nam te basam ci lay bokk. waaw basam ci lay bokk moom nag donte fàq na ah, ay ay at yu bëree bëri bëri gars gisuñu ko dégguñu ko am naa yaakaar ne bu ñu moom bu bëggee bëri dina bëri. waaw brise de mer mi ngi avertir Albouri. waaw brise bu tëggee ci xam naa nag ñoom ñaar nee na mën na ko mettre kaw maanaam mën na ko dóor mu kaw loolu ay wax brise de mer la Amina Ndiaye ñu dugg ci li nga xamante ni moom moo di tuusu suñu làmb yi mu daal di poser ab question boo xamante ni am na importance lool nee na ba xam Balla kii Boy Niang 2 day continuer éternellement di xaar Balla Gaye bu mu am jotam. loolu nag Amina Ndiaye xam naa ne ça dépend si staffu Boy Niang 2 rek comme que dafa am staff am mag yu ko jiitu xam naa ne euh, dinañ ci wax si kàddu googu ci dinañ ci àddu ci loolu ci mboobu la mbir waaye xam naa ne moom li leer ba leer mooy ko ne sama xalaat moom.

ki nga xamante ni moom moo di Abdou Diouf nee nañu mi ngi descendre aux enfers ndax euh, y a un moment bi nga xamante ni doxatul ci côté dara doxatul ci côté waaw parce que soo ma juumul ñaari defet la tegalante si wala làmb ji jóge foofu tamit ñëw tamit am beneen defet ci MMA bi moo tax journal bi samp loolu ne du Abdou Diouf moom ay mbiram neexul fi mu toll nii. ku ci mel ni tonnerre nag moom contraire bi la dafa daal di retrouver euh, confiance am. waaw dafa retrouver li mu war a def rek mooy nag ah, euh, jël beneen combat rek balaa balaa ñoo dugg ci koor gi man loolu laa bëgg mu bëriwaat parce que moom Tonnerre am na njaay dafa bokk ci làmb te ndeysaan am na lu mu jot a def carrière bu riche ci làmb ndeysaan ba tax na li nga xamante ne moom la ko touche ba tëjee nee na Gaston Mbengue de retour à Dakar Gaston Mbengue de retour à xam naa ne ginnaaw bi mu demee woote ji woon na rek normalement ah fi mu toll nag Amina Ndiaye yi moom jeex na na ñib noonu la ñuy daal di dugg ak yéen ci journal bu record mu ñëw ñun ci huit mois après leur dernière rencontre guy gi ak Reug Reug duel de waaye nag bataille verbale bu nara neex. bu nar a neex très attendu sax ngay wax Amina Ndiaye parce que ñaari mbër ni mu la ko waxee sànq rek loolu yëpp ci biir journal record la ci xale na Assane Walu nii bu ñu bu dina neex Amina Ndiaye parce que ñoom ku ci nekk da neexal da yëngal da xumbal te dinañ fa gis ambiance ñaar ñi damay tiit sax ñu songoo foofu noonu mm-hmm. ah, ko def rek

amateurs yi dinañ am si ñoom satisfaction. ba tey ci li nga xamante ne moom la record fësal nee na Boy Dakar daal dina étaler fitness am yëpp contre Thiatou Nguéweul. waaw parce que benn défaite la am 10 combats la def Amina Ndiaye 11 combats sax la def am benn défaite boo xamante ni tey par décision arbitrale la parce que ki ko ki daanu ko Amina Ndiaye. moom Boy Dakar nekk na koo xamante ni ni ma ko waxee rek phénomène la ci àndal parce que guddul réyul na ko si digganteem ak caatu ngéwél ginnaaw recours Balla Gaye 2 bi ba ñu jox ko 1 million de francs CFA Bombardier tamit daal nañ koy delloo 1 million Bombardier tamit restitué nañ ko 1 million de francs CFA ginnaaw bi nga xamante rek Amina Ndiaye combat boobu pare na parce que daf si am li nga xamante tey mooy euh, avertissement yoo xamante ni Euh, moo gét nag moom daal dinañ euh, briser le silence di yëgle ne Lac Rose ak Amaneex incha allah dinañu bëri avant li nga xamante moom moo di koor waaw dañu war a bëri avant koor gi su ko defee après koor gi ñoom ñaar ñëpp ku nekk mën a amaat sens mën a amaat beneen combat parce que yaakaar na noonu lañ ko bëggee gis nga MMA dañu développé rek Amina Ndiaye seen combat yi du yàgg. maanaam waaj mm-hmm. préparation combat yi du yàgg parce que su ko defee nekk tout le temps di liggéey di su ko defee mu loolu avantage am di fayee ko bu fayee ko fayee ko waat rek dootul bëggati combat bu yàgg tey danga koy gis mbër bu toog ay ñaari at ñetti at te ne te ne sportif nga ah ne sportif bëgg nekk sportif de haut niveau te di toog 3 ans 4 ans yoo xamante ni tey doo ko bëri loolu yaakaar naa am na njëriñ perte de temps la perte tamit euh, perte ma tamit bu rëy rëy rëy si wàllu koom kon na si mbër bàyyi xel bu baax a baax a baax élection yi nag daa jeex na yow foo nekkoon. man maa ngi woon ca diwaanu Parcelles Assainies ak lu ci mënti am daal dafa mel ni Sénégal bi yoon yaakaar tasul. Hmm. waaw Sénégal bi yoon yaakaar naa ne rek vote yi moom si ñi ñi la dépendre nit ñi xool bëgg rek ñu voté leen maire yu bëri gis nañ fa ay changement kon yaakaar naa ne nit ñi nag changement bu ñu koy wax maanaam dañuy bëgg tamit ku keneen ku ñu na andi lu bees ni ma ko waxee tout le temps rek Amina Ndiaye lii di nguur moom di ndam yàlla moo ko yor mooy xool ku ko neex mu jox ko ko kuñ ko jox tamit mm-hmm. du sa ndam bul ndam xamaa ne luñ la dénk la rek mm-hmm. yëfu jàmbur nag ba borom bu ñëwee rek du am lu mu lay wax kon nag nañ gën a yërëmaat askan wi mm-hmm. gëstuwaat askan wi parce que mairie moom rek na ren bu baax nañ daal nañ liggéey ah, ngir Sénégal mën a développé parce que depuis 1960 la ñu am indépendance ba tey te ba tey changement bi bëriwul noonu la demee kon ba tax na rek mbokk internet li lañ leen indiloon ci xibaaru làmb yi ma jaajëfal leen fa waaye mënti nekk jaajëfal la yow Boucar waaw di la jaajëfal rek di jaajëfalaat ñëpp ah, bees muy Thierno Sylla di ko ñaanal yàlla na yéen bi woyof caare njal gi ah, maire ba fa nekk tey mooy Badara Ndiaye nekk un nouveau maire moom tamit mooy le régisseur des bourses di ko ñaanal tamit yàlla na yéen bu woyof parce que askan wi ko fal kon askan bi am nañ ci moom yaakaar ah na góorgóorlu rek li des moom nee naa la yàlla dina ko matal kon daal yàlla jàmm yàgg